سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار والتابعين لهم wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak waa këram muy sunu yenent muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu deñ di dotti fa moom ak njabootam ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddu nuyoo muy jàmm yàlla ak xéewalam yërmaandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboole mindeefam mbindeefam mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen baneen yoon ci sunu jotaay bii ñu tuddee jotaayu weeru koor ginnaaw biñ leen ndokkeelee ziyaar di ñaan borom bi subhaanahu wa taala weeram bu màgg bu barkeel bi lépp lu ca yiw yàlla na ko tawfiiqal ay jaamam tey incha allah ñu dellusi ak yéen ci sunu fukkeeli jotaay ak juróom di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dëgëral ay jaamam te kàttanal leen mbokk yi ñu dellu ci sunu waxtaan bi ñu ubbi démb mu jëm ci wàllu ixlaas di wax ne ñàkk ixlaas gi wallaahi tar na mooy jëf ji nga xam ni nit ki mi ngi koy jëf te fekk na defu ko ngir borom bi te damay wax ne am na yenn mbir yoo xam ne ki koy taxawee xëy na dafa ñàkk xalaat ci lu bari ndax damay wax ne àddina bu yàggoon sax ba mu leer na ni yow danga fi yàgg jaru ko boo ko doon def mu leer la ni nit ñi dañ lay fayit jaru ko waxatumaat nag bi nga xamee ne loolu lépp amoo ko ci te buur bi nga xam ne moo tax ngay def borom bi subhaanahu wa taala moo yor fay moo mën a fay te wallahi dina la fay rawatina nag kuy rafetal ku nekk kooku moom moo la dàq rafetal kon damay wax ni looy yàqamti ku la bu max looy yàqamti lan ngay ut lu dul borom bi subhaanahu wa taala kan nga bëgg a bégloo damay laaj kan nga bëgg a bégloo kan ngay calculer ba ngay taxawee mbir moo xam ne yow sa coono yëpp la nga ca soxla mooy ñu tagg la ñu gërëm la ñu yëkkati la ñu wax sa mbaax lan nga ciy am nga ñàkk ci sa boroom te am na ñoo xam ne lu bari li leen yóbbee ñàkk ixlaas mooy bëgg a bégloo seen moroomi jaam waaye nag fàtte seen borom wala ñàkk koo calculer moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne mu ne yaxlifuuna billahi lakum li yurduukum mu ne wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanu muminin aaya bii borom bi subhaanahu wa taala naafeq yi la ci doon waxal mu ne bu ñu defaan seen tojaange ba pare dañuy ñëw di leen giñal ci yàlla ngir bégloo leen di leen kontaanloo ngir am seen ngërëm borom bi subhaanahu wa taala mu ne loolu nag yàlla ak yeneen taam ñoo ci gën a yey su fekkente ne mu ne ñu gëm ngeen subhanallah léegi nag yow jullit bi nga war a natt sa bopp démb naaféq yi dañ daan def naka sudul noonu ba pare ñëw pour dencalu walla ne ñoom dañoo dencalu ci mbir moomu ñu lay giñal ci yàlla ngir ut kontaante nit ñi ngir ut seen mbégte ndax kooku calculé na boroomam déedéet waaye tey damay wax ne ay ñaata nit ñooy def loo xam ne ngërmaane gañ ca soxla rek mooy bu nit ñi ak nit ñi kontaan ci ñoom ak nit ñi tagg leen ak nit ñi gërëm leen te loolu borom bi subhaanahu moo ci gën a yey te am na ñoo xam ne lañuy def seetuñu ca borom ba ndax buñ ci doon seet borom ba am na tey ñoo xam ne yàlla may na leen astuut ñuy woote woo ñu ne ñoom dañuy def ngir yàlla waaye xoolal yow tey jii boo déplacé wu woon dem ci ñoom dangaa feebar dangaa am malaat danga am aajo bu jàmp wala ordonnance boo bëgg a boo bëgg a jënd subhanallah nga ñëw ci pet rek ne ah man day yàlla moo ma tax a jóg mën na doon sa dëkkandoo wala koo xamul su fekkente ne ab jullit la boo xam ne la muy def yàlla rek moom moo tax kon du ca seet leen day joxe ngir yàlla waaye boo moytuwul mu gàntal la lu tax ndax nit ñi fekkewuñ ko ana boroomam ndax jëf ja ànd na ak ixlaas déedéet boo moytuwul lam lay jox ci paas lay yem boo moytuwul yàlla may na ko kàttanu million yum la mën a jox te du ko wàññi dara waaye boo moytuwul juróomi téeméer la lay sànni ndax ci yàlla nga ko woo te kenn fekkewu ko te comme que moom la muy def ragalu ca yàlla utu ca ixlaas noonu rek la mën a jëflantee bu ko defee ndeysaan kooku génn dem waaye gis nga su génnoon dem kenn ñëw léegi ak ay mbiram ànd ak benn mbooloo bu simple rek boo moytuwul sax na mat juróomi nit mu commencé xaawee ko fële naan la yaa baax nii nga yaare yaaree daraja di la taggal say maam subhanallah nga sañ koo jox léegi ci ci ci kanamu nit ñi yëkkati léegi benn ñeent fukki junni wala lu ëpp loolu jox ko ko ndax loolu mooy joxewu ngir yàlla ndax wax na la sa bopp nee nga taggal na la say maam ñu ne deetawaay ànd naag mbooloo yoo xam ne mën nañ laa gis ba xam la ngay joxe kooku nag nga bëgg koo jagleel ne ngir yàlla lay def wala moom dafa baax ana borom bi subhaanahu wa taala ndax loolu la seede ci jaamam kon kooku boppam lay nax te loolu muy def noonu loolu mu ca ut loolu la cay am ndax boo moytuwul ñooñu mu jox xaalisam bu ñu génnee sax waxal ko lu bon ndax nit ñi moom kenn moomu leen kon damay wax ne ki nga xam ne nit ñi moo tax muy def nit ñi la cay ut li nga xam ne moom mooy seen ngërëm subhanallah kooku dee xanaa xalaatul waaye mi ngi doon ko perte kon yow mi nga xam ne yow la yàlla leel nga mën lu baax mën koo def yàlla kàttanal la doole joo xam ne mën nga caa jàppale say mbokk jullit te yàlla rek tax man damay laaj lan ngay sàggan bay calculer keneen nit ñi bu ñu bëggee ci yow lum lay yokk buñ la meree lum lay wàññi rawatina nag li nga xam ne tey danga koo teg ci yoon lan moo tax ngay ut ngërmaande nit ñi nga fàtte sa borom borom bi nga xam ne moo lay fay te ku rafetal jëm ci moom mu fay la ngeen gi fay te tey ñàkk ixlaas bi fépp la ba ci dangay gis koo xam ne dafa yor feebar dem hôpital ñam fa fekk ba ca docteur ya mën ko jàppale te yàlla rekk tax waaye déedéet duñ ko jàppale lu tax ndax boo moytuwul ku ñu xamul la buñ ko defee kenn du ko yëg te duñ leen tagg ci yaa baax duñu ko def ñaata bakken tey ñoo tëdd ndeysaan ñaata bakken ñoo tëdd ngir ñàkk ordonnance ba mu jeecee faatu nga gis ne ba mu feebaree ka faatu boo moytuwul sax ndeysaan am na ci ñum ko yaakaar ci ay fameem wala ay jàmbur ci ñu ko jege mu ñëw mu ne dimbali leen ma sama ordonnance bi te yàlla rek tax ordonnance ba lan la trente mille la wala vingt cinq mille nga ne ah man day wax dëgg yàlla ba ñu ma ko de waaye jafe-jafe yeeg soxla yi ndeysaan kooku dem fas yàlla tëdd ak métit boobu bi isnillah ba nam cay faatoo yow mi defoon jëf jooju ñu ne la faatu na nga ne sama mbokk la sama nit la sama am di jàmm la dëj ba warta tuut dangay def ngir yàlla wala looy def wala dangay def ngir àddina gërëm la nga ne dangaa yeew sa nag yëkkati ñeent fukki junni ne danga leen koo dimbalee cent mille saaku ceeb ñu lay tagg ka gërëm wallaahi ñu ngi lay tagg ci musiba yow miy def lii ragalal yàlla nga xam ne bis di nga dajeeg sa boroom te it di nga dajeeg sa mbokku jullit bi nga xam ne lii nga def ci ginnaawam leer na la yow bu toowoon sañoo koo def kon nañu ragal yàlla te ay mbir la yu am yoo xam ne doomu aadama yi dañ koy dund parce tey lu ëpp ci jëf yi jagleel luñ ko boroomam su euh, jagleel ko borom bi subhaanahu wa taala ila mata ila mata bii dund waaye itam bakkan it yii jukko yu ñaaw sa mbokku jullit bi nga mën a dimbali te yàlla rek tax kan moo la tere tey nga dimbali ko te yàlla rek tax ba tey dangay gis koo xam ne yàlla may na ko may na ko gan ñi ngi ci weer boo xam ne njëkkante lu baax la weeru ut ay yiw la waaye moom santiiru ko ndax mi ngi ci koñ boo xam ne ay waay bu bëggoon a ut yaaba te yàlla rekk tax aka koy yomb boo moytuwul ma ngay ndogoo ñetti ndogu te tey ñi ko wër yépp ay néew di doole lañ mu waroon a mën a génn ca koñ ba jëf ju muy def te yàlla rekk tax mu dugg kër gu nekk guddi kenn du ko gis walla fajar gu teel wala sax mu yónnee mu wàccee fa ay ceeba ki diwlin dama ne te yàlla rekk tax mu doon jëf ju ànd ak ixlaas la ca gën sax moom mooy mu yónnee ne bu leen joxe sama tur dama ne jëf ju ànd ak ixlaas laa wax de jëf ju sell nga xam ne jaamu yàlla ba ba mu koy def borom bi subhaanahu wa rek moom moo tax soxlawul ku ko tudd soxlawul ku ko bàkk soxlawul ku ko kañ bëggul sax ko xam yaayam ak papaam waxatuma ak koñam subhaanallah moonte am na ñu bëgg dara ñoo xam ne ñi ngi taxawee lii mu jox leen dund weeru koor wala fan yu mujj yi fi des wala fukki fan yu mujj yi ay waay ku xamoon li ci tuyaabaay dogal say mbokk jullit taxawu leen ci seen aajo leel leen ci buñ ko soxlaa nàndal leen buñ ko soxlaa mu doon jëf joo xam ne dama ne am na yenn coono yoo xam ne kenn du ko def te calculer woo ca sa boroom subhanallah azim ndax pertaange la ndax nit ñi liñ lay wax yokku la fenn dalu la fenn jëf ja bu àndu ak ixlaas ay waay sa digganteek sa boroom xanaa du boroom bi subhanahu wa taala mooy kondir mbir yi bu ko defee ñaata yiw ñoo la romb waaye nga am la nga am yor la nga yor faale woo ku lekk ak ku lekkul calculer woo sa mbokku jullit bu dog ak bu dogul yow nag yaa ngi xaar nag koo xam ne dina la tagg gërëm la ba nga mën a puukarewu yow kooku ngay xaar boo moytuwul sa sarax ya ngay joxe te yàlla rek tax di ko jëlee koñ ba koñ wala quartier ba quartier ndax foofu lañ lay taggee foofu lañ lay gërëmee donte na ña ngi koy yóbbul sax yayoowuñu yow loolu sa yoon nekku ci nañ la tagg rek gërëm la seedeel la sab mbaax subhanallah kon nañu ragalaat yàlla te xam ne jëf yi jëf lu mu rëy lu mu bëri lu mu yaatu su àndu ak ixlaas yow ma koy def da ngay doon ko perte kon lan moo la ko jaral kon bu ko defee incha allah mbokk yi fii lañuy ñuy yëkkatee sunu jotaay di leen jox dig daje. ba suba incha allah ci kàttanu rahmaan di wax ne lépp lu ci jub ci borom bi subhaanahu wa li ci dëng day dellu ci matadi doomu aadama ñu ngi koy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala di leen ko jéggalu jërë ngeen jëf ahsanallahu ilaykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa يغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله